mënoon ngeen jël ay ay ay trente secondes sa ceddo nag ceddo murit euh, temps yi moom mooy chef de file euh, la meute donc euh, je l'attendais pas si bas nag wax dëgg yàlla pour man li c'est très petit donc peut-être xam naa dafa ñàkk li mu def ñàkk ay activités ak ay combat mais combat yi bëri na soxlawul jéem wane ni maa ngi defa yoon bi je veille veille wax dëgg yàlla dafay laaj dëgg dafay laaj jub dafay laaj nga jub dans ta démarche dafay laaj nga jub intellectuellement dafa nga am xam-xam des choses yi xamé valeur yi ma wax ni yépp sincèrement ils en sont dénués amuñu ko wax dëgg yàlla amuñu ko donc euh, pour revenir à nos moutons je montrais que euh, un ay malikit ñoo fi nekk malikit yooyu fu ñu dégg weer dama ne mag ñi suñu ko déggoon sax ni weer bi génn France bi laay dañuy julli parce que détail bi gars yi nekk tey jii ils étaient pas dans ça Secondo, au-delà de l'aspect de l'école de doctrine, je voulais aussi montrer que malgré euh, tout les moyen, moyens de, de télécommunication, télégraphique et télégramme, mais c'était limité. Mais nous avons fait effort une ouverture vers le monde, à fortiori les DAO ils n'ont pas le droit de faire moins. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas un secret n'est-ce pas Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, euh, les phases, les éclipses lunaires, fibre 2032 dama spécialistes déterminent ko calculer ko la course de la lune l'orbite de la lune la vitesse de la lune la masse de l'astre lii yëpp dañ ko xam aujourd'hui avec la physique Ce n'est pas des choses que xam du chinois xam nañ ko n'est-ce pas éclipse yëpp ngay xam nañ kañ lay a am yemul chinois ont sax mission pour bay ay pommes de terre ci kaw lune bi looloo gën a grave nag xanaa léegi des pommes de lune man doo ko sax pomme de terre pomme de lune waaw su ne mbay bay foofu nga xam ne kon lune bi amul secret n'est-ce pas pourquoi kon ñu war a am ñun problème woor woori ñun ñi nga xam ne benn dëkk bu tuuti bi nga xam ne lii benn quartier fi ma ne comme quartier la Sénégal c'est pas un pays c'est pas un grand pays Sénégal c'est 17 millions d'habitants vraiment bëriwuñu n'est-ce pas bëriwuñu nous sommes pas nombreux donc aujourd'hui kon ñun nous avons pas le choix bu dee gars yi wax ne ay malikit lañu ils n'ont pas le droit bañ a couper seen jeun parce que weer wi feeñ na Mali wala feeñ na Mauritanie wala feeñ na Guinée n'est-ce pas donc lii moom wax dëgg yàlla euh, pour man lii dafa jarul sax débat man mënuma mënuma concevoir tubaab bi di jox ndigal ci wàllu julleeku woon euh, sa la ñu fi nekkoon parce que tubaab bi loolu intéressé wu ko tubaab bi lu ko intéressé woon c'est un c'est un économique économiquement la bëggoon récupérer dëkk bi nest Euh, dem outil alalu doomu aadama yi nangu ko donte nag y' a des aspects yoo xam ne de contrainte yoo xam ne tubaab daf ko exercer euh, maa ngi wax telegram télégramme gis ci ay an télégramme an télégramme mais yéen mais vous êtes con wala vous da ngeen dof wala la mooy seen problème euh, je dis archive Nantes man télégramme yi j'en ai beaucoup mais dama leen du sax jox ay télégramme mais archive Nantes la côte je vais vous donner une côte la côte 183 PO slash 1 slash 1 slash euh, pas un, slash un, slash un, deux fois, tiré 469. Mais cette côte-là, les plus archivés, les affaires religieuses, etc., mais il faut quand le pire, tout le monde, nous avons un contrôle. Dîner, nous avons un bureau des affaires islamiques au niveau de la, au niveau de la gouvernance. Pour j'ai vu des rapports mais des rapports

ba ci livre doon ñëw fi Sénégal livre doon dëkk fi Sénégal mais livre tubaab bi ñu ko doon xool tubaab daan ñu bàyyi n'importe quel livre ñëw fi moo tax beaucoup de livres yi nga xam ne kii parlait de jihad wala beaucoup de choses yi nga xam ne ci wàllu doctrine islam politique ak lépp tubaab yi n'accepte pas que ça ça vienne au Sénégal donc encore une fois kon il était question d'attirer l'attention que un mag ñi lañu doon arrêté seen corps sur la base de l'information que les données un tubaab qui n'est pas jullit muy benn ñaar euh, mu dëggal et confirmer que c'était des malikites mooy ñaar ñett euh, y avait pas kon un problème euh, lié kon à la confiance jamono fi tubaab bi nekkee en tout cas n'est-ce pas donc léegi pourquoi wax bi yëpp li ma wax noonu ak li ma fa wax yëpp j'ai parlé de l'astrologie en tant que et l'astronomie en tant que li mu am solo ci islam ndax islam c'est pas une religion bu bàyyi mbiru astronome daa leer hein. ñun dañuy jàngal loolu ci wàllu asrar ci wàllu xam-xamu tarixa parce que tarixa yi nekk dañuy jàngal ilmu nujum ak ilmu falaq mais xam-xamu biddew wi xam-xamu orbite yeeg lépp parce que le Coran est un livre éminemment astronomique surat Ash-Shams le soleil surat Al-Qamar hmm, la lune surat al najm l'étoile surtout Kawkab ay c'est que le Coran parle d'astronomie n'est-ce pas il parle d'astronomie donc aujourd'hui kon euh, suñu taxawee yorante kon ay weer euh, man dama jàpp ni nous sommes vraiment en retard kon bu nekkee ba vingt e siècle ñu yorante ay weer nous sommes en retard bu ne vingt e siècle et ce et là où le malaise fait le plus vous mu gën a gravé mu nit yi xam ne ils sont toujours dans un combat de boxe avec les autres képp ku wax da nga jàpp ne ak ah, dafa maa bañ dafa bañ sëñ bii dafa bañ sama yoon nangam ak nangam maanaam lii c'est un argument pour des faibles maanaam des crétins qui n'ont aucune connaissance ku xamul dara mooy jàpp ne képp koo wax euh, da nga ko bañ fii on n'a pas le temps de bañante fii nit ki ni nga jeexee sa sëriñ et c'est ce que je reproche ñoom Thierno seen group boobu laa mët ni ngeen jeexee seen sëriñ yéen jeex ci tàkk ne sama sëriñ kese képp dong mais ñeen ñu ko raw lañu ñu jeexee seen ay sëriñ te vous tympanise pas on vous tympanise pas mais pourquoi ngeen yaakaar ni kon mën ngeen def benn genre terreur fii xuuxal ay nit saaga def ay compte man tey j'ai vu des gens insulter saaga bon je me suis dit que ku nekk li nga nàmp rek ngay gàll donc peut kon kooku jàngal ñu ko xam

nest pas, entre 1914 et 1960. Mais vous serez vraiment surpris, l'état de, de, de, données euh, disponibles en tout cas sur les relations entre euh, les Toubab et Srini vous serez surpris, n'est-ce pas D'abord, elle euh, Ojula, sur le rôle des administrateurs de la, de la FOM. Mais, mais, vous serez surpris. D'abord, le livre Clausel avec la France d'outre-mer entre 1930 et 1960, n'est-ce pas euh, Témoignages d'administrateurs et de magistrats. Mais vous verrez beaucoup de choses, mais ça va yéen. Arrêtez de faire le malin. Fille, qu'il faut dîner, il ñoom ak tubaab yi mais il y avait une hiérarchie bu fi nekkoon attention euh, tubaab yi amoon lañu sañ-sañ jàpp ku leen neex déporté ko loo xam moo gën a les ay dates toi, bi amoon na seen sax teg la surveillant surveillée droit de fi yow tabax juma sax autorisation pour tabakh mais arrêtez quand même une l'histoire est là toute fraîche ñu bëgg fi jouer ay mythes ak ay légendes yi xamni vraiment non non il n'y a pas de mythe n'y a pas de légende c'est des gens intelligents ñoo fi des gens cultivés yi xam ce qui se passe dans ce pays nest ce pas arrêtez de vous ak di jàppale ci ay dof da terroriser doomu vous ne pouvez pas je parle à la mode, bien sûr man la mët laay waxal ñoom Thiat Doog ak tous ces boucans là les crétins là ñom Paa boobu Mbaye Guèye Sylla yéen ñëpp laay vous êtes dans le même sac atom donc je vous mets un grand M euh, là où vous pensez xam ngeen bax la di wax. donc euh, ñun on parle de xam-xam on parle de connaissance dama ne les problèmes actuels de ce pays là euh, il faut ñu toogandoo ensemble di ko xool euh, avec ba pare bañ ko passionné sànq ba waxtaan sama benn xarit desar ma ne ko mais man damaa yéemu dama yéem parce que ku fi taxaw ne yonent bi sallallahu alayhi ba mu toogee ak waa Quraish, Quraish dañ ko exiger ba pare imposer ko n'est-ce pas euh, imposer ko ne ko doo dugg pour ñëw aj si le traité de Hudaybiya euh, lu ko andi xam nañ quelles sont les raisons forcé ko pas mais il a accepté acceptation boobu ndam la ci islam mais su ñu dañoo imposé yonent bi yonent bi saasam nangu ne jullit ka ñi ñu amna am yi xam ne dañoo meroon mais yonent bi saasam visionnaire la dafa xam euh, dafa xam li xew mais légui fi Sénégal soo fi fii serigne diw serigne Touba wala El malik wala El Hadj Abdoulaye tubaab bi daf ko imposé kaay léegi dafa ñax teggin mais imposé c'est quoi tubaab bi il avait autorité qui était là c'est quelque chose bi xam on peut pas l'ignorer au contraire dañ ko war de manière dépassionnée man sank maa koy waxtan ak euh, un ami Amadou maa koy ziar sax lu bëri donc on parlait euh, de du de, de, du fait de dépassionner et de lire avec les lectures du temps parce que ma dama gis sëriñ yeb ba si rapport yi may wax livre mi wax ni yeb dem leen ngeen xooli ko mais tubaab bi da leen di tagg tous les chefs religieux qui étaient là hein dafa leen tag di wax ni c'était des collaborateurs ñen ñi mu ne non non c'était des des auxiliaires n'est-ce pas li moy bindu tubaab bi lay wax de donc euh, pourquoi yenn sëriñ yëpp xeexuñu pourquoi ça on les a assimilés à des collaborateurs à des collabos parce que dañoo joxe ay hommes Cheikh Amadou Bamba joxe na ay hommes il a été même décoré euh, de la Légion d'honneur française yemul a joxe des hommes des na Khalis. c'est pas le seul mais celui est-ce que du une marque d'intelligence ñu gis ni mais royaume yi fàggaagal nañ leen topp bi dafa ñëw ak force askan bii nii jànguñu xamuñu buñ leen bayé est-ce que est-ce que bu nekkee est-ce que duñu dëkk autant ñu collaborer bi ñun ñu orienté wu euh, préparer parce que l'heure du combat ñëwagul man je pense que c'était la stratégie de fi stratégie a nekk ci affrontement bi ndax l'heure n'était pas venue de s'affronter avec le blanc de d'investir dans l'instruction et dans l'éducation nañu yaraat nit ñi nañ leen jàngal leen jox xam-xam ba ñoom après suñu paree ñoom ils vont ils vont ils vont régler les problèmes de l'heure parce que il faut ñuy dépassionner la lecture de suñu kilifa yi kilifa yi yi fi nekk duñu ñu ay yàlla euh, dama bëgg tamit gars yi tamit defloo seen biir xel yi ce ne sont pas des dieux qui sont là au Sénégal Cheikh Seydil Hadji Malick Serigne Touba El Hadj Abdoulaye Niass Baye Niass limaam ñoom ñëpp wax kenn du ci yàlla laa wax ay nit lañu ils ont posé des actes c'était de grands intellectuels de très grands intellectuels des hommes engagés des hommes des savants au vrai sens du mot des patriotes ak l'islam, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, euh, moo ce ñoroon ñi ils étaient pas ci le bi xew temps ils étaient ci nous ñu ensemble pour régler les problèmes des musulmans les problèmes de l'islam n'est-ce pas Les problèmes de l'islam

donc yow sa ngay bëgg la lekk da pas ay borom xam-xam ay dof ñoo fi nekk mais lii mënul continuer quand même fii ay borom xam ñoo fi nekk ñoo waxtaan ci xam-xam et on doit voir avec les lunettes notre temps en nous appuyant nak sur l'héritage bi xam ak le travail qui a déjà été fait par suñu ay ayel mais on doit aujourd'hui dépasser euh, les enseignements yi xam moo fi 19e siècle hein. je suis désolé mais yàlla moom jamono bu nekk dafay jëfante ko waa jamono boobu alquran euh, alquran dafa ne kullu yawmin huwa fi sha'nin de chaque jour yalla mu ngi dafa teg yalla yi yàlla taxawul ay mayam jeexul wala akhiratu xayrun laka min al ula li ñew après moy dàq foofu li weesu won te yalla nak jamono bu nek nak mom moy samp ay ndanan yoo xam ne ñoo koy taxawal diine bi pourquoi ñun mën ñu xat ni jamono bi ya des anges islam ya des combats l'islam ya des musulmans qui sont là qui doivent les porter ni bëgg toujours di porter en touche di tapalé ay waa sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi bi mais quand même attention waaye disons la vérité. Donc, il faut nous il faut nous sérieux tout donc euh, euh, li am mooy man dama gis ne projet islam ci boobam laa gisoon commencé yàq Sénégal fii te chaque fois mu wax ko nag dama ne tarixa yi kilifa yi sampoon tarixa yi ñoo xeex diine ñoo ko xeexal ñoo ko taxawal de manière dépassionnée nak de manière pas pas du tout mbiru mbiru tappale wala calcul yalla ñu liguel yalla kessé la ñoroon mais aujourd'hui euh, ni ni ni ni bolé sen si tarixa yooyu yàqu yakku yi am si yëpp instant ñoko yak tout ci plateau télé bobu waa daf ma laaj ci walu koor man yéen yi ñëpp xam ngeen ni man talib tijaan la lolu man au début dama ko doon neub sax parce que ma jàpp ni pour man bokul ci respect ni may waxal ma leen di bëgg forcer sama sëriñ ndax forcer sëriñ moo dul yoon te loolu dafa am la meut ils sont champions ñom en concon lu bëgg forcer ñëpp seen sëriñ man sama sëriñ daawul sax tudd ba léegi may wax yow naa def sama life ba jeex du ma tudd sama sëriñ parce que ma jàpp ni ñun ñi lu ñuy régler dafa dépassé mbiru sëriñ li ñu bokk dafa rëy trop te par respect kenn ku nekk jal mooy tudd sëriñ sa sëriñ mais man dama am sama sëriñ am naa foo bokk maa ngi gën a jeex tàkk fuuf sama sëriñ maa ngi ko gën a bëgg juróom ñaar yoon te maa ngi ko gën a xam ndax man sama sëriñ ànduma ak moom ci yëf yi dof dof yi gars yi xewal nii man dama jàng xam sama sëriñ la la wax dama ko gëstu dem xool ñi mu doon àndal xool ñi mu yar dem xool ay bindam man ay bindam laa wóolu parce que dafa wax lu leer inna xutuuti lil anaami saadatun sama bind bi sama bind yi sama rëdd yi may rëdd mu ne ab ab texe la ab bànneex la pour pour mbindee fii donc man dama dama dépassé ay c'est-à-dire seek ak ay daanukat yi may waxal c'est que man loolu laa fa laa indi woo yéen jàpp ni da ngeen war a dépassé fi ngeen nekke